ndam di da ngay béggal sa xol bi ndax yaa yor bànneex bi ni tey bés bi sa bés la sa mbër daan na kontaan nga petit promoteur lay seet petit gaa yi ne benjamin quoi un petit bu toll nii mais waaw waaye waxatul dara kër gi rafet na de ah ah non Aziz moo koy tàngal waaw ah waaw lii ngay waxee ah. salaamaaleykum. na nga def. ana Aziz. waaw. <laughs> mooy petit promoteur a ngoog. moo ci doon seet gis nañ ko. ma ma li ma li lan. méga lan méga fon.

kon tey jongante man ak Assis dina leen ah, mbokk téléspectateurs yi seetaan seen télévision Futur Média mbokk yi nuyu nañ leen nuy bi gën ci nuyu yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu am mbégte lool dellusi ak yéen comme ni ñu ko baaxoo def dimanche ju nekk ci seen émission jongante mbokk yi gis ngeen ko xam ngeen ko ki ñu dalal tay ci walu lamb kenn mënul wax lamb te doo ko tudd nam ngembuul beure nam lu ne def nako ci lamb waye mu demone ñu laaj ko fo jëmon mu ne dama doon reculer pour mieux sauter ñu bari xam ko ci Aziz ndjay ñi di ko wax domi Ale ndjay am sax ñukoy wax talibé Cheikh ci bëgg bi nga xamni mom la bëgg wa kër sidi di Aj Malick si

maanaam ñëwuma ngir di dóor dàqe damaa ñëw ngir jël li ma moom sarax leen ndongo daara mbaa mu tibb ak dooleem moom la ñu seet si tey waaye mbokk yi dafa am lu nu baaxoo di nuyu bu baax a baax ñi nga xam ne ñu ngi fii ci biir réew mi di fi daan seen doole lépp loo xam ne liggéey nañu ko suñu borom tabaraka wa taala yàlla na ko ful ba mu doon ay xéewali xéewal yoo xam ne ñëpp dinañ ci mën a xaj ñi amul liggéey nekk fii ci biir réew mi nasaraan di ko ay chômeur yàlla na leen yàlla may liggéey boo xam ne daañu ci mën a tedd teral si seen waajur teral ci koo xam ne wërsëgam xaj na ci ñi nga xam ni gisuñu seen bopp fii ci biir réew mi ba màngaani dem ci bitim réew nasaraan di ko wax immigré moo xam fu mu waay mën a nekk ci àdduna wërngal këpp te doon doomi sénégalais mbaa doomi aadama yal na la yàlla may loo xam ne danga ko ñëw investir ko fii ci biir réew mi Sénégal ndax jàmbaar dawul dafa wuti doole ñi nga xam ne mbokk yi dañoo feebar tëdd ci lalu l'hôpital yi sax ak kër yi yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu soit seen sago may leen wér yaram ñi dëddu dem bar sax yàlla xaare leen àjjana woyeful suuf ci seen kaw te àtte leen ci yërmandeem mbokk yi asalaamaaleykum Aziz yi laa jàkkaar lool su ma neexee sax ma ne ko rakk sama parce que papa alaaji Alla Ndiaye daf may faral di wax ni sama doom nga euh, moo tax ñu seetsi ko tey nara waxtaan ak moom lu bari ci làmb nar waxtaan ak moom lu bari ci lan moo tax mu doon promoteur nara waxtaan ak moom ci lan moo taxoon mu demoon digganteem ak Balla diggante ma ak waa faas lu bari dinañ ko waxtaan ak moom tey Aziz Ndiaye maa ngi lay nuyu ci télévision Futur Média rawatina émission joŋante. waaw jërëjëf Lamine maa ngi lay fay ah, di nuyu u TFM yëpp ah, di nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi seetaan di nuyu suma ay waajur di nuyu suma ay mbokk di nuyu suma jeune frère bi toog suma wet muy Baye Ndiaye di nuyu aussi sénégalais yi nga xam ne yëpp tey ñu ngi bëgg làmb ak amateurs yi. di nuyu aussi l' ensemble des promoteurs yi nga xam ne bokk nañ ci collectif des promoteurs maa ngi leen di nuyu di nuyu askanu làmb yëpp di ñaan Sénégal yàlla def fi jàmm Lamine. Aziz euh, li may faral di laaj mbër yi dinaa la ko faral di laaj naa mu wax sa bopp euh, yomb mais suñ buggee xam kan mooy Aziz Ndiaye pas sa côté vie parce que loolu tax ñu mm-hmm. ci côté làmb ci cadre làmb Aziz Ndiaye euh, ngir xale yi nga xam ñu ngi seetaan wala doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi seetaan joŋante. au sortir ci émission bi xam kan mooy Aziz Ndiaye ci wàllu promoteur loolu bëggoon nañ ci xam. waaw Lamine loolu dinaa ñu sawar a tontu Aziz Ndiaye mi ngi nekk benn jeune sénégalais la. bu juddo ci banlieue bi juddoo way yaro fo magge fo aussi fo euh yalla def mu nek xalé bu bëggoon lamb bi mu nek xalé dan supporter ay mbeur don and ak ñom comme yeen mbeur waaw ku melni man mbeur bi mo supporter ci suma aduna dama and ak mom, bi mi bëre ba mi baye bëre muy mustafa Gueye mo nekkon suma mbeur nekkon suma xarit lool nag mën na ci wax li tax ma mën ci wax moy man dama tak suma papa ba fépp fumu far suma magge gis ko foofu lay far bima ma nekkee xale dama dan gis mu dan supporter wa Fass don supporter mbay gay mbay gay dem muy supporter Moustapha gay bama mag ba xamé ay 92 ma gis ko muy supporter Moustapha gay diko jappalé ma and ci ak mom bimu mu ba xamni ni ak fimu tollu mayatu ko muy and ak mbër wala di ma continue lolou mu def di and ak Moustapha gay diko jappalé ba yalla def bo ci dernier combat mok ak bien que j'ai des relations fraternelles ak Balla dama ci and ak mom ba mu jeex ba yalla def mu tek nga mom ci jàmm ak salam kon bu xol Aziz d'abord amateur la. manam mhm. euh, bëgg wajur moko ko ci walu lamb waaw loolu waaye supporter euh, wa face mhm. mom mu ñëw supporter wa face mhm. mais lan moo tax nga doon promoteur waaw li tax ma promoteur tay Lamine euh, ma ci dellusee en 2005 jamono yoy maa ngi am ay 25 ans ou 26 ans yalla mi dara tawul mën naa ni maa nekkoon jeune bi njëkkoon a osé nekk promoteur ci jamono yoy ndax ñi fi nekkoon promoteur ay El Hadj Bassirou Diagne ñoo daan def ay El Hadj Amel Diène après ñom Gaston ñëw mak ñoo daan tëgg làmb mais mon naa ni maa njëkk a nekk xale bi njëkk a tëgg làmb tëgg ko Iba Mar tëgg ko sax stade Demba Diop. ci âge yooyu hein? en 2005 bobu ma ngi am ay 26 ans 27 ans côté yooyu nekkoon. moment yoy lañ la doon tuddee le Benjamin des bobu ci lañ ma tuddee le Benjamin ndax bobu man ma ci gënoon a nekk xale. li tax ma def ko nak dama gis ni jeune sénégalais bu ne bo audacieux fep fu mag ngi nekk di liggéey bo setee loxo man nga fa dem liggéey. li may la mu nekk jeune dama ko doon def pour représenter sama morom jeunes yi ba tay ci li ma nekk.

di dem di contact di bërintu ba bi may nekk lycée Limamou Laye j'espère que ci laa ko bàyyi woon mais dama daan ànd ak ñoom di dem di yéeg ay dune di contact ñoom Mbàkke bi nekkoon écrit plateau ay Mor Fadam te ay Gora Fall ñoo fa nekkoon dama fa daan dem ak ñoom ngaylum yi ñëpp ngaylum bi muy bëreeg Tyson boobu maa ngi entraîné écrit Njàmbur quoi mhm. yàlla nag moo def su ma bëgg-bëgg làmb yàlla dévié ma bi ma amee tuuti moyen ma dugg ci làmb nag di ko parce que boo laajee tey Balla Gaye day wax ni Tyson mooy idolam ci mm-hmm. ci ci làmb euh, mbër yu bëri boo laajee ñu ne Moustapha Gueye ñii ainsi suite yow kan moo la ban promoteur moo la inspiré tey ba nga ñëw investir ci làmb mun naa ne man bi may ñëw ci làmb aw woon mm-hmm. benn relation ak benn promoteur ba taxoon mu ñëw boobu maa ngi nekk Sandaga Sandaga bi ma fa nekkee yoroon magasin nekk fa bari woon ay mbër yu ñuy fréquenté suñu daan am ay conteneurs yu ñuy wàcc ay mbër ñoo ko daan wàcce ay ngunda ñoo ko daan wàcc ay mbay juuf ak yeneen i mbër ñoom Pape Sène et autres ci biir relation boobu ñu am ak moom ñoom ñu dem ba un jour je me ma dem dibiteri tafanaar bi nekk Pikine mm-hmm. ma ciy toog di waxtaan ak tafanaar euh, ba tafanaar suma xarit la ni ma war nga mën a dugg ci làmb mën naa ni baat boobu ci moom la njëkk a jóge ak Diaw ah mm-hmm. Aliou Diaw maa ngi koy nuyu de passage waaw ah, man maa ngi koy nuyu sama grand waaw man suma grand la mm-hmm. ñu toog waxtaan noonu tafanaar ni ma mën nga dugg ci làmb ñu kaf ba ci laa njëkk a tëgg combat ak Pape Faye moom njëkkoon nekk sama combat en 2005 mooy sa combat ci noonu kaf rek ci biir kaf laa def bu dugg ci quoi vraiment. nga dem jënd carte promoteur ah, non boobu amul woon sax carte. ok deuxième année bi ci la carte ñëw. ok mais première année amul woon nga ñëw waaw jamono boobu nag làmb cherul woon ah, ndax maa ngi fayoon ba ma juumul euh, Balla Beye un million cinq cent Pape million cinq cent côté yooyu lañ doon fay. génnoon nga ci. waaw man moom vraiment su ma waxalee yàlla. bi mu dalee tëgg làmb ba léegi yàlla nattoog moom am ci benn problème déedéet ok yow léegi nga ñëw bëgg nañu nga wax ñu sa palmarès si wàllu làmb yan combat nga tëgg hmm. ak yan combat ñoo la jot a marqué waaw combat bi ma gën a marqué nag ci suma yi ma tëggagum yëpp ci làmb mooy diggante Moustapha Gueye numéro un ak Lac de Guerre hmm. numéro un hmm. mooy bi ko Tafa Gueye di def prise bu spectaculaire boobu nekkoon stade Demba Diop moo ma gën a marqué boobu ñu taxaw fa seetlu tuuti ah. dégg naa lépp luy yaa ko def ci kaw Lac de Guiers 1. non loolu moom Lamine soo ko waxee ma xam ne vraiment loolu moom waxu nit ñi la mais loolu amul. loolu man mosuma def loolu Moustapha Gueye su ma diggante ak moom passé nañu làmb làmb moo ñu boole mais dafa dem am ay yeneen relation Aziz da nga wax ci biir wax ne Moustapha Gueye sa papa moo doon supporté waa Fass yow nga ñëw supporté tey euh, Moustapha Gueye ba bi muy dernier combat bi muy beure je sais pas ak la de guerre numéro 2. kon buy bëree boo ko tëgg waaw ak Balla Gaye kon buy buy buy bëree forcément mo ngay faral malgré yaa ko tëgg. waaw malgré maa ko tëgg vraiment maa ko tëggoon. xonwuloo Lac de guerre non yalla téré damay wax dëgg. est-ce que xam de guerre da la cee mere non suma mère amna ci. xam nga xam nga ci xam nga ci lo suma mbok talibé la xam naa ne dina dem ba comprendre. gis nga Lamine mbokku taalibe dama ne la Lamine tay kay mo wax la <laughs> non Aziz dama lay wax man dama lay wax en connaissance de cause daa lay wax su ma la question après dama lay baye nga répondre dama la ne mm. man amna certitude que ni la de guerre numéro 1 lol du lako bal baal wa bu ko nexé bañ mako bal mais suma ko baalul su fekkee dafa am lenn luma ko ci togn ma ngi ko ciy jégalu mais awma won woon jotu man lama ma moy mooy fay naa leen li ma fay maa ngi xol ban yoon la don jaar bu mën limu len fay ma mën ko rentabiliser ci loolu laa nekkoon mais beneen combat bu Moustapha Gueye mës a bëree dama ci daan jàpp ci côté bu nekk pour mu am ndam mais boobu Moustapha Gueye bu dee mi ngi moom ak moom fenn loolu dama doon wuti lu ma lu ko fayee fay la de guerre mais aw ma woon jot di ko ci jàppale wala leneen mais combat bu mu mës a bëree ma fekk ko ba bi muy bëreeg Balla Gaye ma wax la ci loo musul xam Baye Ndiaye ñuy toog ñun man ak moom ñoo bokk ndey ak baay ak Yumpaañ ak Badiane ak maam. moom moo jëloon otoom ci boppam ci la yóbbu woon Balla Gaye numéro 2 muy bëree ak Moustapha Gueye. moom man ci sama oto ma dugal ci Moustapha Gueye muy bëree ak Balla Gaye. mais yëpp gis nañ ko. kon xam nga ni ñun suñu kër sport la ñuy dund. Ah. am nga droit faral ku la ah. mais su paree on tourne la page. est-ce que loolu du ak làmb ji ni mu mel tey. Mhm. yow nga war a soxla mbër mu nekk. Mhm. war a laaj est-ce que du loolu jamono bi ñu koy def ci période boobu lañu tolloon. mais niveau bi ñu toll tey di tëgg làmb di boole ñaari nit yàlla def na ni vraiment fi ñu toll amatuñu droit di faral benn mbër di bàyyi ko ci des. Mhm. même suñ koy faral aussi. intérieurement dañ koy garder suñu xol mais dootuñu ko fésal ba kenn di ko xam. ñëwal ci sa palmarès. Mm-hmm. ñu eggali waaw après Balla Gaye numéro euh, euh, Moustapha Guèye ak Lac de moo la gën a marqué après nga tëgg ay combat waaw bi ma fa jógee tëgg naa aussi Gris Bordeaux ak kaddu gi mos naa ko tëgg mm-hmm. bi may tëgg Moustapha Guèye ak euh, Lac de Guiers Modou Lo ci la bëre woon combat préliminaire mm-hmm. nga fayoon ko ñaata je pense que cent mille laa ko fayoon mu daan ma mayaat ko cent mille <laughs> te tey mënoo koo tëgg àdduna moo bëri àdduna àdduna moo gudd tànk. non daf ko bëggul rek su ko bëggoon tey ma jox avance. koo tëgg Aziz. waaw ah, d'accord yëpp dinañ ci ñëw ci kanam nañ am na non nañ dem après waa. waaw ah, bi ma fa jógee ensuite ma tëggaat Gris Bordeaux ak euh, Lac ak ak kàddu gi. Hmm. maa ko tëgg tëgg naa aussi euh, Zos ak. Khadim Ndiaye numéro 2. Mustafa Gueye numéro 2 ak ay eh, bari na ay xalifa ngiraan. Mhm. mu tëgg aussi Balla Gaye ak Papa Sow sax maa ko tëggoon. combat préliminaire après nga dem. bi may dem maa ngi demee ci dernier combat bi mu tëggoon mooy diggante Seras ak Balla Gaye. voilà foofu foofu mbokk yi laay xuusee <laughs> comme ni ma koy fas yéene faral di defee ak mbër yi. ñu wane Mao Cissé lenn ci combat yi nga xam ne jëmm jiy Aziz Ndiaye tëgg na ba bi muy dem ci làmb ji gars yi ñu ne ñoom ñooñu ñoom kii ñoom kii ñoo ko kii ñoo ko xon xabtal ko mu génn làmb ji loolu yëpp après dina leer léegi dama bëgg ñu xool combat yi nga xam ni Aziz Ndiaye jot na ko tëgg ak mbër yooyu mu lim léegi Mao Cissé ñu dellu siwaat Mao acca nañ dem cër lañu joxante kenn ku ci nekk jox na sa morom cër. ku perdu du am saftalu bu wóor ngay gis. ragal nga ko saftalu amee rek nga gis day saftalu bu wóor la mooy te xoolal tey la dana bu ñu nee rànkum daje nga gis bëre bu rëy. ah sos na ko damaa jàngi woon xeex États-Unis d'Amérique. laay laay la la waaw waaw waaw facilité. papa Sow pied gauche am la ji. man lan moo tax ñuy xaar waaye duñu ca yegg. ah bis bee rëy. medul lii du dañuy fonk bis bi. medul lii du wéy dinañu xeex observation dafa am ci lamb. ma ne wax dinañu xeex. ni far rek ñu daw ni rënkum daje déedéet. ragal naa ku ci ku ñu a xeex sa morom dal sa kaw. xoolal Lamine ñoo ngi dox xewet ñoom ñaar. Zos Papa Sow. ñoo dox xewet. laay laay la la. Papa Sow wàcc na jotu. mais bis bu rëy da nga koy jox cër. beneen avertissement. waaw Papa Sow beneen avertissement. waaw waaw Zoss beneen avertissement waa amateur yi ñu Zoss Papa Sow Zoss Papa Sow Zoss ak Papa ah, ko Zoss a ngi xeex Papa Sow a ngi xeex laay laay la laay laay la la laay laay ko Papa Sow mbëllee na ko Papa Sow mbëllee na ko Zoss Papa Sow ñoom ñaar ñi nga lewato a ah, sos dox na ci kawam ah sos dox na ci kawam. papa dafa bëgg a ripaas. waaw waaw waaw sos dox na ci kawam papa sow sos sos a ngi dox ci kawam sos a ngi dox ci kawam sos a ngi dox ci lan moo xew a ngi xeex jël na ko papa sow jël na ko papa sow jël papa daan na sos papa sow daan na sos papa sow daan na sos la laay. fëgal a toj na suuf. faxasla xoyi wuro wo dem na kang waxe man dem den taani fogel a garga mboose Aziz Ndiaye production tegu ko ñu ci peyu mbër yi fogel a mi ngi xëcc ndomba yi moo féete càmmoñ garga mboose moo féete ndijoor garga ngi dox di ñëw ñu ngi léewtoo fogel a garga mi ngi def déplacement dem latéralement yërndu na taxaw fëgal a Garga Mbossé ñi ngi léewtoo fëgal a Garga Mbossé ñi ngi léewtoo hmm, ñi ngi léewtoo fëgal a Garga fas garde Garga Mbossé garde Garga ngi dox ndànk aj garde bi topp ko fëgal a na ko Garga ngi dox gargaangi dox gar koy kar karal fege la Garga Mbossé fege la ngi xëcc ndomba yi fege la yëndu taxawat gargaangi dox ndank ah garga door na la door na dem jëli ko rëpp ah laa ilaaha illallaah garga gàcc na ko mbot amna lu xew fege la jëli na ko garga gàcc na ko mbot amna lu xew yëkkati nañu loxo Garga Mbossé ne dal daan Feugueleu Feugeula dafa dóor daw jëli ko Garga Mbossé gàcc ko mboot laaj na ay juge am ndax pare nañu ndeysaan tey mooy juróom-ñeenti fan ci weer wi. lees dellu ñaar weeru avril arbitre soufflé na. ñetti tànk ci ginnaaw. booy ñaar lees na arbitre soufflé na. Aziz Ndiaye moo tëgg combat bi ndeysaan doomi Aale Ndiaye ji. kenn ëpp ci sa morom doole. loolu nga yaakaar. maa la wax lii xoolal bu baax lamin lees na ak booy xool ñoom ñaar seen i capacité. ñaari doole. ñu ngi léew too ñoom ñaar. booy ñaar booy ñaar mépp na léegi nga bi ñu bi ñu songoo léegi dañu ziarante ziar bu safan ah. nga lami les deux ngi dox ci kawam les deux ngi dox ci kawam moytul danañ la sàcc danañ la sàcc les deux songoo nañu songoo nañu booy ñaar les deux songoo nañu ma ngi koy bañ na ma ngi koy bañ na ah ah ndax chute na dégloo ah, la arbitre na de booy ñaar daan na booy ñaar daan na Boy Niang daan na Less 2 Boy na Less 2 Boy na Less 2 Boy Niang laay laay la la laay laay la na ko laay laay la la jël na tànk bi Ama jël na tànk bi jël na tànk bi Ama ah, na ko bañ na laay laay la la Gouye Gui lii lan waaye lii lan la añ na ko añ na ko bañ na ah laay laay la la laay laay la la laay laay la la laay laay la la laay laay la la ña nga ca suuf ama moo tegoon benn tànk bi ci suuf ama moo tegoon añ na ko na añ na ko ah kuy gi na ama kuy gi daan na ama balde kuy gi daan na kon mbokk yi seetaan ngeen euh, Aziz Ndiaye euh, combat yi nga xam ni moom la jotoo tëkk Aziz lan moo la génne woon làmb ji. waaw li ma génne woon làmb ji pour gàttal la ah, mën naa ni ndigal waajur la woon ah, su ma waxee dëgg rek te yàlla tax. ah bon amul dara lu ma mës a génne làmb ji lu ndigal waajur dama doon tëgg muy neex trop. kon sénégalais yi war nañ laa baalu ah. waaw ndax lan. non gars yi ne dañ la xong génn làmb ji. <laughs> non c'est sérieux waaw man ñu xaw ma man. waaw kan moom mooy. non ñëpp xam nañ ni jinde nga see waa kër jinde lañu Baye ay Baye Ndiaye ñi yëpp ay jinde lañ ñooy <laughs> wutali Balla ay xon yi daan yi kii nii yooyu ñoo xam nañ ko mais gars yi dañu ne moment boobu nandu leen leen woon kër yu baax yi. ñu la làmb ji ñun kër yu baax yi dañ ko juddwaale man kenn mënu ma xong li ma génne woon ci làmb ji. Mhm. te mu clair mooy ndigalu waajur du xaalis bu ma mës a perte billaahi wallaahi mosuma perte ci làmb mhm. moy wax rek te yàlla tax suma wajur moma ma bàyyi woon muy teg làmb bi mu and ak riir and ak ciow xeyna mom mag la amna lu muy gis amna lu muy gis te man duma ko gis mhm. te bim mo koy def lo bobu suma neexon fep ni duma ko def mhm. mais dama dégg ndigalam ne ko loolu nga bëgg mu ma ma ko bi ba wara duggaat ci mom ñew tag ko ni ko dama bëgg duggaat ma mhm. jotna bu la demal lu la limay indi moy xeyna na moom gisone gisoon ba mu neex ko ni mhm. ma arrêté. hmm bima demee ba war ci dugat ñëw naa ko ni ko dama bëgg dugat ci lamb ji mun ma amul ben problème dang ci bëgg dugat bayina la té maa ngi la ci ñaanal yalla na la ci yalla defal xewul defal la ci ay ndam. lan mo la ko wa fas bolé comme lan. lan motax ah. nga wax légui sa digënté ak Moustapha Gueye hmm. wax sa digënté ak ah, lan motax nga bayyi wa fas ñew école. non man Moustapha la amul une relation. mom la doon supporter mom mo nekkon suma xarit xarit kenn duko don sa ça ne pas dire que Moustapha Gueye bu nekké suma xarit wala mu nekkon suma mbeur ñepp da mais Fass dama am ak ñepp rapport bu rafet muy le président Abbas ndoy bi may nekk Fass ba bima koy bay suma goro Momar mo nekkon président Fass teewul dama ko bayi bima suma wa gox soxla muy way pour mo jàppale jeune yi fa nekk dama soxla way wala way lo sox man duma politicien soxla mo fa poste soxla mo nekk maire soxla mo nekk dara lu nekk jeune buy liggéey kon man liggéeyal géejawaay moom ma soxal ndax fa dëkk mais du lan lu ma fa soxla pour nekk ko fa. Mhm. li li may doon géejawaay maa koy liggéey. Mhm. mais du politique du. mais waa Fass dañ lay daw. daw man Fass combat yu ñu am ren lay daw. Fass combat yu ñu am ren maa leen ko jox juróomi mbër laa fa. non da ngay dëkk non fi toll nii hmm. commerçant nga. Hmm. commerçant nga buy tëgg <laughs> mais liñ la fa liñ la fa mayoon. amatoo ko. loolu may luñ la fa mayoon amatoo ko accès bi nga amone ci mbeur yi accès bi nga amone face léegi amatoo ko parce que xam nañ léegi euh, manam euh, euh, wa keur balagay nga wa nga non man Géejawaay la balagay Balla ah, bi mi judd Géejawaay suma kanam la mom Géejawaay la ma fekk hmm. bi mi judd Géejawaay la ma fekk tay bi may faral face wala di faral kenen Géejawaay amul mbeur bu ko don représenté tay suñu démé ba ku melni gejo Mor Fadam Géejawaay Mor Fadam ba mu dëkkee la yoron

non man man li may def moom du ko def relation ak Balla may na ko mu dem ba kunkaane wutal ko sëriñ loolu relation la ak moom diggante Baye Ndiaye ak Balla Gaye comme samedi ak dimanche moom su ma rakk la ñoo bokk ndey ak Baye mais du man maa koy tànnal ay xarit am na droit ànd ak Balla Gaye dem ba ndar wutal ko sëriñ. mais est-ce à travers moom dañ lay gis.

noonu la mel 20 millions su ma ko naree jox Baye Ndiaye mu yem ci moom moo gën muy dem ci Balla pour lan ba pour lan 20 millions à Balla Gaye man j'ai une famille et des enfants ak suma frères yi ma jox leen ko tollu ma fu may joxe mbër un franc déedéet liggéey moo ñuy boole ak bokk gox géejawaay laay défendre comme moom ni mu koy défendre. man ma dégg sax ni combat ak Yékini bi je sais pas xam nga am na seen benn kër bu ngeen jaay. ban kër non c' est sérieux man loolu laa dégg am na seen benn kër ngeen ba ba ba xam nga def def ko ci parce que Balla demoon na ba mënatul woon attan frais yi parce que euh, kuy bëri ak euh, roi des arènes euh, il faut nga am ay moyens dëgg yoo ko déraciner. yow tey bu ñu la nee ñun jaay nañ suñu kër pour def ko ci mbër jàppale mbër jarul jaay sa kër ban kër la ñuy jaay jàppale Balla Gaye tax nga jaay sa kër combat boo xam dimanche la 10 minutes 5 minutes est ce que daan yëg ni jar na jaay sa kër jaru jaral na la ko yow. non dégg naa Yékini rek nga compte. non mënoo sax xool ci moom. Lamine ba tax na ñemewoo sax dem foofu pour di ko wax naan ko kaay ma tëggal ak yooyu xalaatoo ko sax. Lamine kaay ma wax la tey loo xamul man je suis l'ami de tous les lutteurs Yékini mi ngi may dégg su fekkee mi ngi may dégg j'avais des rapports fraternels ak moom seqoon nañ kóllëre seq teraanga fii ci senegal mbër yi mës a waat ni mësuñu lekk sama un franc bariwul de ci teraanga rek laa seq ak ñoom. jàmm laa seq ak ñoom gis nga affaireu làmb question de dix minutes la trente minutes mais nit ku ne gox bi nga dëkk bu soxlaa da ngay taxaw mm-hmm. looloo ma booleeg yenn mbër yi mm-hmm. mais man ma jàppale Balla pour mu daan Yékini man lii daan Yékini kay wax na ko nee li koy daan loolu du doomu aadama Yékini Yékini kañ li mu wax mooy li ko daan moom mu yi ci kii bi non man mënu ma man Yékini sama mbokk taalibe Cheikh la aw ma ak moom benn xam léegi ñu ñëw ci seen collectif boobu ngeen sos collectif nii Alioune Sarr dégage CNG jóge fi. Ah. dégg naa laaj naa ko Gaston sax ne ko moom bu nekkee benn position bu xaw a inconfortable nag parce que fi mu toll nii yéen a ngi koy def affaire bu garaaw rek moom daf leen di embarquer dans ci benn bateau rek. pour buy noyé yéen ñëpp ngeen noyé ndox. sax da nga a wax Gaston moo ñu influencé wala. voilà moo leen influencé waaw. Lamine Barki Mouhamed Gaston maa ko ëpp fit. Hmm? maa ko ëpp fit.

doo ko xam mais soo ko jegee nga xam ne ku baax la. mais da ngeen xuloo woon yéen. non man mosuma xuloo cest à man j'ai des <laughs> principes. Aziz xuloo woon Aziz man ci lu ma xam man lu ma xam laa lay wax nii. lan laa ko def wax ma ngay wax ni homme de principe la ak yooyu. non dañuy waxtaan bi ñandantel lañ set bi ni mbàccum gerte seen diggante ñaar avance yi muy jox mbër yi nga wëlbatiku jox beneen mbër avance mbaa mu joxe avance fële nga wëlbatiku talone ko fee si des. Lamine waaw déglu ma leeral pour ñu gàttal dama ne la Gaston ëpp ma fit ëpp ma fulla ba di ma dugal ci lu ma neexul li ñu ànd di défendre mom homme de principe la mom homme de principe la man homme de principe la yalla mi ma tim xam na li def ak lima ma doon wax je défendais des positions nobles kuma ci fekkul kay ci nga may bàyyi mais du mom moo ñu embarqué wala mom moo ñu influencé ñun ñep ay mag lañ majeur et vacciné liñ doon défendre mom bu demone ba bokkatu ci sax dañ koy continuer di défendre kon du problème mom moo ñuy embarqué wala leneen mom dafa gëm li ñuy xeex xam lu noble la mu ànd ci ak ñun di ñu ci conseiller nekk magu mbir mi aussi itam ñu war ko rend hommage parce que li mu def tey billaay wallahi li mu def ci làmb lu am solo la mm-hmm. te ba tey def ci am place am mm-hmm. ñun dañuy jël ay. <laughs> génnee ngeen ko si Aziz lu wax loolu yéen ngeen ko si Aziz. yow fi toll yi mbër jeex na di yow dëgg ngay genn wàll gi sëñ Modou dëgg na genn wàll gi ñoom Assane Ndiaye ak ñoom Kandji séddoo nañ li ci des. fi mu toll nii dara desatu fi. non mbër yi xaajaguñu ponkal yi amaguñu moom du ngeen leen tëgg. fi mu toll nii parce que 75 millions. loolu mosuñu du ngeen ko dépassé. mosuñu wax duñu leen tëgg de kenn waxul duñu leen tëgg de dañu wax ne ci jaadu 75 millions waratuñ ko dépassé waratuñ ko dépassé ak duñ ko dépassé ak dinañ ko dépassé bokkul dañu dem ba xam ni fi làmb toll tey jafe-jafe yi làmb am ci kaw la ko gën a amee exemple bi yomb na toll na jamonoo xam ne bi nii di faye ko vingt cinq million wala trente millions wala quarante da daan bëri deux trois fois par année bi mu demee ba cachet bi gën a relevé ngay bëri deux fois par année ñu dem ba léegi cachet bi toll foo xam ne benn yoon ngay bëri wala doo bëri loolu moo waral tey xam nga tey képp ku ci juum sax ba am soixante quinze millions benn yoon nga koy am ci at mi mais trois fois quarante millions c'est cent vingt millions mais tey xoolal li nekk ci ay mbër douze mille mbër ñeenti mbër rek ñoo ciy fayeeku soixante quinze ñeent li coow li di bëri bëri ñoo ko ciy fayeeku. muy muy muy muy muy Modou Lo. waaw euh, Tyson. Euh, Balla euh, Balla Balla Gaye peut-être ak Eumeu Sène ak Tapha Tine Tapha Tine moom yàgg na 75 millions man xam naa ci dara moom. waaw bu dee yàgg na ko fa tam mérité na ko ah. Mhm. liggéey na loo xam ne war na ko yóbbu ba foofu. Mhm. mais yàgg fa aussi tam warul tax ngay jouer sur enchère ci leneen aussi. Mhm. su dee yàgg na fa. c'est normal parce que liggéey na ba. soo waxee ngay jouer sur enchère kon yaa ngi dox combat. non man bépp combat bu nekk ci réew mi te ñaari mbër war ko jongante. su ma xel mi ngi ci du ma nëbb. as foo jëlee xaalis. liggéey rek Lamine. xaalisu banque ngay liggéeyee. fii képp ku fiy liggéey dama la état du bi ñu dëkk yow nga bokk ci am na bor yoo xam ne mi ngi sa ndodd yow ndax état du Sénégal moo ko leb que yaa may ba nga nekk sa bi la embauché du fonds propre lay liggéeyee. bàyyil sa yoon new ci. non dama lay wax rek non non sa yoon new ci. man tey je suis man rek keneen ak keneen mu ñu wax ci. yoruma xaalisu banque wala du ma liggéey xaalis banque kenn ju ko ndamoo. parce que xaalisu banque ñu jub ñu lañ ko fa tegal ñi nga xam ne am nañ crédibilité su ma ci soxlaa damay dem jël comme sénégalais bu nekk. su ma ci soxlawul tam bàyyi fa. sans hmm. problème c'est que percée bi mu jaaxal nit ñi macha allah man yéene naa la ko. tu sais que tu mon frère man yéene naa la ko quoi eh. euh, euh, mais percée bi moo jaaxal gaa gaañi quoi. Euh, ki nga xam ne peut-être il jouait les second rôle ci làmb ji ñëw tey. ba ñu bindal nan le nouveau patron de la lutte sénégalaise yow luñu wax rek Aziz ne man mën nako kuñu wax mbeur muñu wax rek Aziz ne man mën nako teug tëgg mën naa fay mën nga fay Balla gay dégg na yang koy waxale sor ngeen mën nga fay Tapha yang koy waxale sor ngeen te bu Gaston baye Eumeu nga jël ko teug ko loolu mo xawa jaxal gañ ko xamanteni xour dab la won comme man mais jékki-jékki rek lo wax rek mën a mën mais loolu mo xawa jaxal jaaxal quoi quoi eh, Lamine machallah tay machallah Lamine man sama lamine munul la dara ñuulul ni ni man ñuulul damay laaj rek am taskatu xabar boy laaj la man ndonga dara la wa <laughs> ba sol voilà moor ma wa gis nga yene Macky Sall sax la sol fiñ mu lamine lamin man ndonga dara la talibé la xalé la xalé du am xaliss dina am bëgg-bëgg nak am audace ak ñime ak fit limay wax ni bëgg naa ko lépp mën naa ko bëgg naa ko rek lay wax te maa ngi ñaan yàlla ci kàttanam mi ma dara jaal ba nga xam ni combat bu ma bëgg bu ci yàlla àndee tuuti rek àndee rek su ma ko doxee yàlla mun na ko sottal mais amaguma xaalis xale du am xaalis dafa teel man fi mu toll dama war a. amagu 40 ans. non amaguma 40 ans. te amuloo xaalis amuloo xaalis di fay ay 75 millions bëgg naa 75 millions yooyu kon kon euh, Aziz kon yow boo xamee amee xaalis fii toj. non Lamine comme ay montage financier la rek dañuy monter. lan moy voilà <laughs> Aziz man nak bëgg na nak vraiment nga wax ma lan moy montage financier. xam nga tay si tu es crédible institution financière yi wóolu la nga am un bon projet rentable mu leer na lii tey soo ci duggé mën nga ci génn bu lo nexé nga monter sa ben projet ya xam da ngay dem ci sa banque yaa xam da ngay dem ci yeneen institution financières yi bari nañ ci Sénégal léegi nga proposer leen un projet fiable et bu rentable bu amul benn risque wala risque aussi du bari si vraiment tu es crédible te wóolu nañ la ñu financer la nga nga def ko loolu mooy montage ok montage c'est trop facile. Mhm. tur wi rëy na mais jafewul. ok ok loolu mooy montage financier kon yow ci yooyu yooyu loolu loolu. non man man man ci làmb defaguma benn montage financier pour benn combat. Hmm. musuma ko def kon si sur fond propre ngay wéyee fi toll ci li may dugal ci làmb waaw li nga jotoo li nga jotoo dugal waaw li may dugal ci làmb moom lan li mën a nekk fond propre lan li mën a nekk ay lijjanti quoi waaw hmm. ah. yaa ngi lijjanti bu baax fi mu toll nii lijjanti nga taxawagul nga ñaata combat fi ma taxawal daal li ma la mën a gàttal lu ma ñaar fukki mbër avancement hmm. waaw bokk na ci ay Baye Mandione bokk na Baye Mandione ko avance diggante jox Papa Sow avance jox Ama Baldé avance jox Lac Rose avance Modou Anta avance Sa Thiès avance. Hmm. Malick Niang avance Tyson 2 avance Neko Rell Gris numéro 2 Kaaw Cissé bari nañ daal vraiment. am na ñoo xam ne mais bàyyi ma ñëw moom papaam nee na ko na delloo avance bi parce que du bëri ak Papa Sow. loolu la la wax lool la waxoon wala loolu la wax ba léegi. non ci bi may mujj dégg loolu la wax. bi muy mujj dégg barki démb kay dégg nga li mu wax. nee na jégal na doomam baal na ko bàyyi na ko mu dem bëre ji. Hmm. man liggéey bi ñuy liggéey dafa ànd ak professionnalisme bu ñu taxawal nañ ko. soo ñëwee ci ginnaaw c'est un contrat irrévocable maanaam mbër bu xas a xaatim suñu contrat mënoo ci dellusiwaat te ma Mandione bi papaam di wax fekk na mu signé contrat bu yàgg bu yàlla bëggee dëgg wax dëgg yàlla. ah waaw kon def ko def ah, papaam yëgu ko. non man problème mu famille moom du ci dugg. ok non bi papaam di bi muy kii fekk mu. bi muy wax li ma mën a wax daal mooy contrat bi ma lii ak moom moo permettre mu bëri combat am ak papa Sow bii. ni coow li amee déggoo ma man mhm. ndax boobu xam naa ci li ma tey mhm. fi ma ko teg mhm. man structure bi ma yor dama ko encadre am ay cest à ay juriste yu ci nekk ay avocat yu ci nekk yu mel ni ay maître mu ture nekk suma avocat tey du ma dugg ci dara loo xam ne nii xooluma ko ba càmbar ko ba mu jox ma ci aval pour ma def ko bu coow li bare nag doo ma dégg mu wax ma wax mais fu wóor laa koy teg

VIP yi y' problème man ñu ngi suma champ de tir man li ma la wax léegi bàyyiwuma benn mbër. Mhm. dañu wax ni dootuñu dépassé la ñu wax. mais képp ku ci nangu soixante quinze millions am na ñu ma ciy waxal. Mhm. suñu dàq dégg naa sax sori nga ci Balla gay ak euh, tax ci rib. non du euh, Balla Gaye moment moom moment bi ñu toll nii sax tax ci rib mooy sa problème mais Balla moom mi ngi sa biir poche. non Balla nekkul sama poche de. non mi ngi sa biir poche laa veut dire pas nekkul sa biir poche nañ ma baal ci kàddu gi. Hmm. Euh, mais. suñu waxé ni Balla wax ak wax nga ak mom ba yew denc. non man la bëgg wax quoi man ma ngi wax ak ñëpp man am mbeur yo xamni xam ne mënuñu wax ni bëgguma bugguma seen combat bëgg na seen combat j'ai amna suma stratégie yu may jaar pour mën leen tëgg suñu d'accordé ci cachet bi nga xamni mom moom la collectif bi wax. moy 75 millions buñ ci d'accordé yalla mo mi te du am dessous de table. wóor na non Lamine. lolu man nax jaaxanu mo di saw naxuma suma bop man lima doy lima yor ci combat doy na ma sëkk wax dëgg yàlla sax bu doy day am rek na ma mais aussi j'ai un projet pour un bon combat un plus grand combat que ça. mais mais mais sponsors yi ñoom ñooñu nga wax noonu ay montage financier ñoom ñoom dañu am. cible te ñoom VIP c'est une cible. ñan la les sponsors. Ni nii may waxee yow j'ai signé deux grands contrats avec deux sponsors yo xamni de renommée lañ international suma ma neexoon fofu signé nak ñom contrat ba pare lañ may jox khatim naa ko ba tek leneen lu ma ci dolli rek bëgg lu neex amateur yi la VIP yoy suñu d'accordé ci principe bi promoteur yi wax kep ku ci d'accord bu la neexee amna na ñu ma ciy waxal amna na ñu ma ci waxal amna na ñu ma ciy waxal suñu d'accordé dañuy finaliser rek dem ci kàttanu yàlla. ok légui coowal télé yi. waaw chaque fois dañuy wax ni yenn yenn ci télévision dañuy wax ni Aziz dafa wor. wor wor parce que waaw ma ngi ñu daf ñuy bayyi ñu fu mel ni Futurs Médias fa laa nekk foofu laa mën a wax dañu ñu def promotion làmb ci oh. bu dee l'Oeil du Tigre ñu wax ci bu dee Rofo ñu wax ci bu dee jongante ñu wax ci bu dee RFM ñu wax ci bu dee L'Obs ñu wax ci ñu bàyyi ba jour télévision futur Médias ñëw ñu dàq ci ban lamb lañ la dàq say lamb sama lamb sa lamb wa dàq nañ ma dàq nañ ma man sa ñaari lamb ba bedd bi nga taxaw ne ma man munuma ci dara waxna ba sonu El ndjay mo moo fi dug man non El ndjay Ndiaye dama lay wo beut ak ma wax la loolu waaw El ban lamb ren bi passé waaw ren non ren sama lamb yep filmé nga ko non amna sa ben lamb soy wax lool moy daw wa sa waaw daw y des incompréhensions ci contrat bi amone daw mais ren contrat bi amone daw munu la ci won dàq combat yep am nga ko quatre combat yi ma tëgg yep filmé nga ko man duma ma ben télé mais ren ci kàttanu yàlla dina am changement bu mag. ban changement la yor. changement bi cuisine interne la ñu ngi ciy waxtaan ak CNG pour xool nan la ñuy fexee ba defaraat làmb ji defaraat bi du question que dañuy amaat benn télé problème mais lamin coono bi ngay daj di def sa émission. di def promotion benn promoteur ci làmbam di ko jàppale di ci liggéey daj ci coono bu nekk yow ak TFM bisu combat ba nga ñëw war a filmer sa beneen naataangoo ñëw la nga coono bi nga dajoon yëpp mu yem ak yow même jour moom du ci wax du ci def ba bis ba mu yor caméra am ñëw filmer def émission am yow li nga doon liggéey lépp mu jël ko teg ko ci teleem est-ce que dina neex ci yow. dañu waxante dëgg dañu bëgg yow su ma amee ak yow contrat ak TFM ma mën la protéger ba nga mën a am exclusivité comba bi ba nga xam ne coono bi nga ci dajoon lépp bàyyi sa yitte yi def reportage lépp. su boobaa nag nga am loo xam ne nii scoop la yow yaa koy moom nga mën ko jox say téléspectateur mais dootuñu nangu benn télé ànd ak benn promoteur liggéey liggéey bi yëpp ba mu jeex bisu combat ba ku ne gàddu sa caméra rek ñëw filmer moom la neexee dem teg. foo toll sa diggante ak TFM. non man ñëw naa fa waxtaan ak seen directeur adjoint euh, di Birane waxtaan ñu ngi waxtaan. ci ouvert nag ak télé yëpp maa ngi waxtaan ak képp ku mu mën a waxtaanal koo xam ni mën nañu ànd liggéey. mais am na télé yoo xam ne sentir naa leen pour liggéey ak ñoom te incha allah ni mooy am naa njor dinaa liggéey ak télé yi ma sentir. tele yi nga sentir kon TFM bokk ci. non musuma wax loolu su ma su ci bokkul woon du ma fa ñëw di waxtaan ak yéen maa ngi waxtaan ak yéen di waxtaan ak ñeneen. di waxtaan ak ñeneen non sori nañ ñi ngi waxtaan wax dëgg yàlla te yaakaar naa ne yàlla mën na ci def jàmm. Mhm. waaw li ma mën a wax daal mooy dinaa liggéey ak ñaari télé. Mhm. may wax làqatuuma seen TV ak kenen lay nekk. Mhm. keneen ki mën na nekk yow. Mhm. mën na nekk keneen. Mhm. yàlla daal moomu tiim may wax. lolu mom mën naa ko leeral. loolu leer na loolu c'est euh, nek na loo ni euh kilifa yi ñu ngi koy dégg. dinañ xam ñom ban conduite lañuy tenir. Hmm. mais ñun li war moy ñu poser question wax mais est-ce que jëmul leen ci yàq lamb ci. nuñ koy yàqee. voilà yàq lamb ji moy bu fekkee yéen a ngi bedd ak di jël di ñëw presque bi benn lañu mais bu presse bi tey boole woon ñoom ñëpp seen bopp. defub dànk def ni ngeen def. lan la làmb jëm. match Sénégal bi am est que benn télévision dugg na fa di ko filmer. non loolu question CAF la. non mais question xaaral ma wax la non non non xam nga lan la euh, kii yow benn promoteur privé nga <laughs> buy ñëw c'est-à-dire pour tëgg la. mais Lamine jeexal nga wax ji privé nga wax waaw d'accord ah. Aziz la neexee. Ah. dégguloo li ma la wax bu neexee ku ñëw sa làmb bu ko neexul bu mu dugg. Ah. loolu dama la ne est-ce que yàq làmb. nan lañ koy yàqee merci beaucoup maanaam droit à l'information dafa am. mais droit xam nga luy droit à l'information. man xam naa luy droit à l'information man mën naa am sama déglu ma rek droit à l'information buñ ci doo wax. dafa compliqué Lamine tay pour def droit à l'information man meuna am suma banque à image filmer sumay combat en tant que organe de la organe de presse nga woma da nga soxla une information je te balance une minute ou deux minutes nga jox nga def joxe sa information mais nous, filmer 45 minutes 2 heures de temps ni droit à l'information informer sur 2 heures de temps informer dans l'émission jongante et autres nga ni information ça c'est pas de l'information. mais vous savez parlant de télévision future Média vous xam nga ni structure la ils sont prêts à collaborer non man vous savez, xam nga vous je vous sens te xam sentir Futur Média te tax vous du ci man du ci mhm. kon collaboration mën na vous bul vous inquiétez pas non Euh, jot ko ci kilifa yi jot ko ci fépp mooy ñun dañoo tàllal ñëpp loxo. cela veut dire que lii ñuy def nii émission jongante bii ñuy def nii euh, dëgg la euh, ñu bëri dinañu soxla tey Aziz wax ci ñu dégg mais ñu laaju ñu la ci dërëm. ñu ñoo gàddu suñu ay caméra ñun ñoo gàddu suñu ay matériel ñu ñoo def suñu essence ñu ñoo def suñu personnel ñëw ñaata nit la ñu àndal bi ñuy équipe la ñëw et pourtant laaju ñu la ci dara a ah, pendant et avant et après man noonu laay def man danga nga daan toog Aziz euh. woo ma ne ma demal jëli mbër sàngam ma jël ko teg ko ci émission bi waa léegi danga nga créé benn émission soxla contenu li ñuy def ci continue bi la bokk tey doo teg émission bi rek bàyyi dans le vide bind jongante rek doo teg dara. non man sans lamb damay exister man moom. kaay ma wax la ñaar man moom Aziz. non du yow Lamine Samba dañuy waxtaan. non man sama émission. yow lamb sans lamb man bu lamb amul sax si laay gën a mën a am matière pour def li ma soxla. dañuy waxtaan dëgg la mais sa base émission sa centre émission c'est la lutte tey sa émission. actuellement nii xam nga làmb amul soo doon teg làmb du safe dañu bëgg waxtaan avant làmb mais bis bu làmb commencé di daw combat yi di am combat am dimanche ngone nga wara def jongante ñew di kenn c'est-à-dire collaboration bul yaakaar promoteur bi mais li ci ëpp télé bi mo ci jariñu xam nga li tax télé bi ci jariñu moy li la wax gis nga bi nga daj ñi ñew filmer mo ñu waxtan def bu bisu ja defu ci dara ñew filmer ba yow ngay tek 22 mu yow di tek 21h yow bi nga daj yow télévision ci dara ba pare ñëw bokk ak yeeg ñoom mi lekk ko bàyyi la loolu lañ bëgg mu jeex bul yaakaar ne ñun suñu bopp la ñuy défendre ñun bu ñu sañoon ñëpp dugg mu gën a large mais tele bi nga nekkal partenaire yaa ngi koy gaañ te yëguloo ko tey su RTS amee benn événement wala TFM am événement daj ci coono bu nekk créer ay émission ay face à face mais bu bisu làmb jaa dimanche ngoon day mel ni moom li mu doon liggéey yëpp jaruñu ko am na télé yoo xam ne pour du ñu interviewer sax promoteur du ñu wax ci sax sax sa làmb soo leen yóbbulee benn sport télé sax ñun la da may fay te ñu bëgg a ñëw nag récupérer sa image yu làmb boo xam ne yow yaa ngi collaborer ak TFM ñu filmer ko comme ni mu leen neexee ñëw teg ko nga xam ni TFM liggéey bi mu liggéeyoon yëpp daf ko ñàkk kon loolu amatul njariñ dañu bëgg TFM coono bi muy daj ak promoteur bi mu nekkal partenaire su bisu làmb ja jeexee moom mu mën a bàkkukat ni liggéey bu rëy bi ma liggéey ak promoteur bi feeñ na kañ ngay ubbi sa saison incha allah mois de janvier janvier. waaw diggante. <coughs> am naa combat yu bari yu mu programme ren li ma bëgg a def mooy chaque mois deux combats. ren ah. waaw ah, incha allah chaque mois de combats. ci kàddu ak ah, ñaar jabar nga am. ñaari jabar la am ñaari soxna. waaw ñaari soxla yow man ñaar laa am nga ñaar doode ñaar dafa bari. man samay ñaar xam nga man maa la gën a nekk xale ay jabar yu ndaw laa yor yu xale. Aziz man yaa ma mag fuuf yaa ma cere <laughs> ñaata kër nga am. ñaata kër. Hmm. <laughs> am naa ay kay am vraiment am naa ay tuuti kër rek la mel. maa xam nga lu tax ma laaj ko loola dégg naa en même temps promoteur immobilier nga <laughs> Aziz dama def ma sax dama def gëstu mais TFM tam lii ñuy teg nii tam ñun ñuy def suñu émission ñoom ñuy teg yi yu neex yi yow ngay bëgg di seetaan lii di xool lii xam nga lii aussi tam non non non dañ ci war a wax dëgg nag wax dëgg yàlla maa ngi def émission kan moo nekk actuellement programme Tunkara man maa ngi def émission Aziz Ndiaye ngay teg yu neex yii man duma waa ndaw si kii kan la lée lii de fii rek TFM rek la am kii kan la Marie Ndiaye ngoog États-Unis la ne <laughs> Aziz nañ continuer lii jongante rek la am jongante rek la am <laughs> dégg naa promoteur immobilier Baye maa ngi ñëw ci yow duma yàkkamti de ah, promoteur immobilier mooy jaaykatu kër yooyu waa jaaykatu kër jaaykatu terrain Euh, ak ay ay jaaykatu caterpillar yooyu affaire yooyu quoi. ay caterpillar ay ay oto yu ngand yooyu waaw. gros porteurs yi. waaw ah, loolu de suma domaine la moom. <laughs> loolu moom maa ngi ciy yëngu tuuti rek quoi. moom man xale laa xale day yëngu day fowantu rek. ba ci kanam da nga ciy fowantu tuuti. waaw ah, ci kanam gëj nga gis Moustapha Gueye. naa ak moom téléphone ci suba. juboo ngeen léegi. maa ngi moom amuñu problème. ah bon mosuñu am amuñu problème amuñu ko wax dëgg man man Aziz man banaa Sénégal quoi. waaw ah, lu ñu la wax foofu. da ñu Moustapha Gueye dafa xulóog yow ndax li nga dem ci Balla Gaye ak affaire yooyu quoi. man Balla Gaye non man mu Moustapha Gueye ba tey ci suba jotante nañ téléphone aw ma ak moom problème te musuma ko am moom man aw ma ak benn ah, bët problème nit ñi ñooy ñooy ñooy ah. ñooy ñooy ñooy ñooy xam nga man bàkkaar quoi je suis l'ami de tous les lutteurs Modou Lo suma xarit la woon Balla Gaye suma xarit la Yékini amoon naa moom ay sa xarit la woon kon nekkatu ko non ba léegi salle bi ñuy entraîné sax maak moom ñoo ko bokk buñ fa dajee dañuy bëri di kaf di tooñante di draayante sport la rek bu jeexee jeex na. Moustapha Gueye li mu nekk CNG. Moustapha Gueye li mu nekk CNG ngeen di attaqué CNG. non xam nga tey attaque bi ñu doon attaqué CNG moo waral coow li tey lépp am ba làmb nar a tegu ci ay raay cest à bi CNG bi doon fonctionné dañuy jàpp ni am na lu ci normal lul amoon na lu ci normal ñu bëggoon nag lépp tegu ci yoon ba nga xam ne bu làmb ubbee ñëpp kontaan. Mhm. mais Moustapha Gueye mu nekk fa même bu fa Aly Ndiaye nekkoon ma gis lu fa jaaduwul dinaa ko wax. Mhm. kii mooy

waaw loolu arrêté nañ ko quoi vraiment. ok ko. lan moo tax ngeen arrêté ko. non c'est-à-dire comme li nga wax sànq rek. mënuñoo nekk ci làmb ji di tëgg làmb di ànd ak beneen nit muy bëreeg si ay adversaire am ñu ànd ak bëgg leen a tëgg. Hmm. loolu day metti ñi dañ koy gisee neneen. te amul sax problème bu grave mais. comme nit ñi dañ koy commenté di ci wax chaque jour. Hmm. ñu toog waxtaan suñu biir. Hmm. ñu changement def neneen ànd ak ñoom. di waxtaan ak ñoom la mere. ñu mere suñu suñu gaañ la suñu xarit la. tey xam situation rek moo tax ñu bàyyi ko. mais du leneen. léegi yow fi Aziz teg tànkam bu nga fa teg sa tànk. dugg ci ëttu promoteur yi. benn tànk la rek ñoo ko bokk rek. ay say teg fii ma teg fii rek benn la rek. ok non c'est yow Fat kan fànn wi nga féete woon bu ñëpp xam la ak Balla Gaye wax ni est yow tey yaa ngi aspiré nekk promoteur. non vraiment ñaanuma yàlla nekk promoteur benn promoteur moo ci am muy Aziz. Hmm. xam nga jàkk boo ci demee benn imam lay am. Hmm. ñun ay naayib lañu topp ci ginnaawam rek bu jiit bu bu sagam yow reporter bi yow yaay dégg lu ne moom talent promoteur bi. Mhm. lamb moom métti na trop vraiment. Mhm. mais man gërëm naa la kontaan naa maa ngi lay delloo gërëm Lamine suma mag suma xarit. dëgg la mais Aziz kontaan naa trop. Euh, vraiment am naa mbégte. Ah. Euh, mbégte boo xam ni amul àpp aussi. Euh, parce que à cœur ouvert. nga ma defal. Ah, ñu toog ñu waxtaan tey tey rek may ma def ko mi mbëri di def quoi. ma gërëm ko non di nga gërëm dinaa la may nga gërëm mais man aussi tamit dafa am leen loo xamante ne nii il faut ma leeral ko. Euh, pour gagner xam parce que man dama bëgg à sortir de émission jongante képp ku seetaan xam Aziz Ndiaye fam tambalé fam fa yem ak fam bëgg jëm man loolu la ci djublu des fois nak nit ñi sax dinañ xawa surtout ci Facebook bi euh, dina am ay critiques yu wax ni pourquoi nga poser question bi lu tax nga waxé ko ni non non non man lima ci djublu moy suma génné ci émission jongante bi kenn dootul laaj Aziz ci cadre liggéeyam ci cadre lamb ji nga xam ne moom la ñu nit ñi xam nañu fi nga doore nit ñi xam nañu jafe-jafe yi ñu ci am ñi ngi ci jotu xulool ñi nga xamante ne am nga ñoom jàmm nit ñi xam nañ fi nga jëm au sortir émission bi man loolu laa ci jublu moo tax mu tuddee ko joŋante joŋante la ñun ñaar ci suñu biir am naa mbégte kontaan naa lool ci yow. benn bi ci doon xaw a ñuul rek te man xam nga du ma nëbb wax mooy dañ ne Aziz de dalay wan kanam ba nga ne moom la rek mu. jàdd jàdd gauche ma ne non non non moom du def loolu. waaw loolu moom gisuñu ko ma bàyyi la nga tàggoo pour wax. la kontaan naa trop jërëjëf maa ngi lay nuyu di la sant nag bu baax ndax yow vraiment nit ku cest à nit nga quoi nit ku simple nga nii nga mel. ku la ci mere ci la lay mere ku la ci bëgg ci la lay bëgg. Mhm. kon yàlla na la yàlla defal jàmm. yow nit ku baax nga suma frère nga. di aussi nag di nuyu suma jeune frère bi comme ni mu la ko waxee. Mhm. moom suma rakk la ñoo bokk ndey ak bàyyi. Mhm. ñoo bokk aussi kër dañ koy sante yalla quoi mm-hmm. makoy ñaanal aussi yalla nako yalla defal jàmm mm-hmm. defal ko lepp lu mu bëgg ci aduna am yalla ndax déggal na ma mm-hmm. on est ensemble et tout le temps ensemble di gërëm suma ay wajur aussi di leen ñaanal ci baytulaay xaram bobu ñu nekk muy makka suma yaay ak xaritam yim fa nekkal ak suma papa ndax dañ may wo sax ni ma ñing lay sétane yow Lamine ak suma soxna bi dem màkk aussi ma ngi leen di ñaanal ñu retourner waat ci jamm ñom ak ñing fa andal ñëpp ma ngi leen di ñaanal jamm di nuyu suma mbokk yëpp di nuyu surtout waa Géejawaay aussi. Mm-hmm. maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu waa Tivaouane di nuyu waa Touba waa Kébémer ñëpp maa ngi leen di nuyu. di nuyu aussi nag aussi tey mention spéciale ak waa Sandaga ndax man Sandaga dama fa bari ay soppe bari fa ay nit. Mm-hmm. dama fa nekkoon di liggéey. di nuyu ñu nekk Touba Xelkom waa El Malick waa Sicap Plateau ak waa Sandaga ci rond point bi yooyu yëpp maa ngi leen di nuyu ah. Mm-hmm. di nuyu aussi waa Lalu Wurus di nuyu suma mbokk yi nga xam ne ñoom laa nekkaloon Sandaga muy commerçant yëpp. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax fàttewuma leen waa Petersen ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu daal bawol bawol yëpp suma mbokk bawol yi suma yaay waa bawol la mi ngi dëkk làmbaay xam nga maa ngi nuyu ñëpp daal Lamine kontaan naa ci émission bi di nuyu suma soxna yi bu baax a baax leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla dëgëral di nuyu aussi sama doom yi mm-hmm. euh, ñoom mama ak Paale ak maa ngi leen nuyu bu baax ñoom day Ndiaye xam nga mm-hmm. di nuyu ñëpp daal vraiment kontaan naa ci émission bi mm-hmm. té li nga ci bëgg nak bëggoon naa ñu gën jongante më comme dama yu bëri yo xamné ne sax dama ko neub quoi. Ah, parce que sama sama sama xarit mo tax xam nga yow <laughs> man maa yee mu piis sax jox ma ay affaire manako non lool wax quoi. man lo ma lool lo indi ma taq ci rip mais jafe non xamna naa nga ci rip mais jafé nga jafé nga yëngël aussi tamit quoi parce que da nga nek ko xamné ne ku dal nga. non xam nga ñun ay ndonga daara lañ. Mm-hmm. ñun ay talibé lañ quoi. nepp no ñëw rek dañ lay comprendre. xamni émission bi da nga rek pour liggéey. Mhm. jugoo pour vacciner ki wala pour jëngal ko non non loin de là. lolou vraiment dañ ci contane ah. mhm. man maa ngi nuyu Sénégal yëpp. Mhm. di waxat jeune yi rek sen xarit sen frère ah. mo ci nek rek ci limu nekkone di fas yéene ànd ak yéen ci saison bi ñu jëm. pour defal len ay combat yo xamni vraiment ay combat yu neex la. man limay def dama ci sentir jeune bu nekk. limay def dama ci yegg jeune yi man je suis le représentant au sein des promoteurs. Mm-hmm. kon maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu suma mbokk promoteurs yi. Mm-hmm. collectif bi ñëpp. Gaston Luc Nicolay ñoom Pape Abdou ak Assane ñoom Ndeye Ndiaye Tyson. ñoom ñëpp nañ ma xaar maa ngi ñëw ay Assane Ndiaye vraiment daal ñëpp nañ ma xaar maa ngi ñëw. liñ doon ñaan yàlla yàlla defal nañu ko. Mm-hmm. ndax bi làmb ubbee ba léegi déggagoo ñaari promoteur yu xëccoo benn combat. kii di fay dërëm kii di fay ñaari dërëm. loolu amul te loolu bokk kuy dox dañ koy bàyyi mu dox. dañ koy bàyyi ak moom ba mu dox kon loolu lañ doon ñaan yàlla. te yàlla defal na ci ndam yàlla na jëm kanam la. voilà bawol bawol yi ñoo doon laaj euh, zappe euh, ne gisuñu ko ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk bawol ñoom ñoo doon laaj euh, mbej bi nga xam ne Kouthia mbej na ko ki nga xam ne moom mooy William William nag moo yor lépp loo xam ni moom moo jëm ci wàllu éclairage kon Kouthia mbéjal ma ngoog mais ñett rek bu ci bu ci yokk. dafa leen émission bu neex a neex a neex boo xam ne yéen ñëpp di ngeen reetaan seen xol di bég. <laughs> zappé. eh je maa ngi bàyyi di ba keneen zappe rek kon koku moy William waaye damay jox mention spécial ki nga xamni mom moy Demba Ndaw Demba cameraman suma rak la suma xarit la nek xalé bo xamni yit xalé bu nangu liggey la xalé bo xamni limuy def gëm nako trop man bu ànd ak man damay contane et à travers mom damay gis medun bu baax ba ndax medun nek fi tay dafa nek ci yeneen liggey bu sañon tay mom mi ngi fi tok ak ñun kon medun jërëjëf ma aussi c'est ma ko fàtte mukk ci aduna suma xarit la suma lepp la ma yalla nga am ay xar yu xaru tabaski yu bari yo xamni dang koy doomu adamay parce que man birna ma ni Euh, bu doon yow rek ak madame Cissé du ngeen sonn waaye yow li wekku sa ginnaaw moo xaw a bari tuuti yàlla na la ko yàlla woyofal sama rakk ji sës ci man rek it euh, Mor Ndiaye maa ngi koy gërëm di ko sant tey moom man ak moom tey dañoo vraiment sonn nañ fu nekk dugg nañ fa nekk génn nañ fa dem naa sax bay wax ne émission bi dañ ko annulé mu ne ma non euh, nañ def émission bi di gërëm bu baax a baax daaw Daouda Seck grand Daouda Seck. Daouda Seck suma xarit la. gis nga dafa am ñett ñoo xam ni. ba ñeent muy Alioune Diaw. Alioune Diaw ñu koy wax Diaw. ak Tafa Naar. Ah. ak Daouda Seck. Ah. man ak ñoom. Ah. ñoo doon upp taxi. di ci dugg di ànd seetaani làmb loolu yàgg na. ndeysaan ñoom ñoo bokkoon grand place. Eh? ak gaynde maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. la waaw di ci boole waale euh, Ibrahima ak Quoi de Neuf boutique ak euh, Modou Khoule Modou Khoule maa ngi koy gërëm bu baax a baax fu neex Khoule maa ngi lay gërëm bu baax a baax waa Facebook bi fàttewuñu critique yi nga xam ne yéen a ngi koy joxe ak euh, suggestion yi loolu yëpp dégg nañ ko maa aussi c'est mi ngi koy taataan bu baax a baax lépp loo xam ne bind ngeen ko ci ay critique wax dëgg yàlla yéen a ngi sentir ni ñi ngi koy jëfe ndax amélioration mu ngi ciy am encouragement yi bari na lool ñi nga xam ne ñoom ñooy ci Facebook bi kon Facebook bi mu ngi noonu ñu affiché képp koo xam ni am nga lu la naqari ci émission bi critiquer waxal lu la neexit wax ko incha allahu bi parce que ñun daf ñu leer ni yéen rek tax ñun ñu nekk kon mbokk yi bu leen fàtte mukk ni fii dong fii kese. fi rek le parish bi tangé té fi rek lay xoyom xoyomé li mo nekkoon sen émission jongante ak Aziz Ndiaye le Benjamin Astafroula le nouveau euh, patron de la lutte sénégalaise bokki yi jàngeen jëf jaa jëf aussi Cissé ba dimanche inshallah rabbi incha allahu rabbi ke waa kenn la mos a tëgg làmb mu jël ko en charge def ci loo xamante ne bi yaakaaruma ko woon kooku mo mos a jàppale ci lamb xam nga blanchiment d'argent non maa ngi ko dégg rek. sellal xaalis bu lel lewul. non xaw ma ne ñu bëri ci promoteur yi dañ koy def bokk na ci yow. non koo xamante ne bi xaw ma loolu noo koy noo koy defee. dama lay wax benn affaire li ma lay wax yàlla moo ma tiim kenn joxuma dara kenn leelu ma leen Aziz Ndiaye man barki Serigne Touba du ma fekk muy wax wala muy jox nit xaalis ma ciy wax rus naa ko def sax famem di ma gis. wala wa kërëm diko dégg loolu lamb jaraluma ko sama diggante ak moom yaa ngi dégg mom nak xawma mom bu fekkee mën nako mom def nako bu fekkee mën nako mom amu problème man nalako ci lagros te te du bi rek la la ko def dan nalako def nalako defat nalako la mën na la limal ay mbeur yu beur yo xamni ne na la ci. bul defee taxna ma jappé ko ko. jongante mo àgg bo gagné fo gañee bo ñaké fo la Let